Vous aimez nos émissions Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 652 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêt? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 652 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. yàgg dëgg la te sul ker du ko teree feeñ en toute objectivité bokk l'une des meilleures émissions de web radio, bu leen rajo sunu kër di jagleel rawatina yéen ñu nekk bitim réew ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna mu ngeen nga déglu via net ñu ci yëkkati ay kàddu yu objectif lépp rek ngir tabax te xam ni Sénégal sunu gàll la seen kër sunu kër la ba tax na loolu la sunu kër point com xam moo tax mu leen a jagleel seen émission en toute objectivité moo xam nga yëngu ci wàllu politique économique culture social, sport bàyyiwul dara 17h GMT 10h ca Californie 13h quelque par aux États-Unis Beaucoup si Hotel, si 001 920 786 85 30 wala bo amee say laaji bopp nga envoyé par email si sunuker Voilà, ça hotmail point com wala sax easy ajouteel sur Skype Radio Sunuker, REC, Radio Sunuker, sunu sec, boole sa bop bu mat sëkk ci liggéey bi ndax kat compétence indépendance et crédibilité juste pour vous informer oui, limon oui, qu'on a gagné, na ferme du fenn la maison Radio Sunuker. Moi, bambou. Sunuker.com de la bonne musique. Jaja Fete, man Manlade and Repo Patisse Radio. Yangi déglu Snooker Radio. Sunuker.com de la bonne musique. waaw man Eumeu Sène maa ngi déglu suñu kër FM. altine bu jot 3h ba 4h ak Cheikh Ndiaye galgal Boy kombo. <laughs> radio suñu kër juste pour vous servir de la bonne musique. wala Bok, yaa ngi déglu rajo suñu kër la radio des émigrés. man la Henry Poupa di koy déglu fu ma toll sio jaajëfate man la de Henry Poupa si sa radio yaa ngi déglu suñu kër radio sunuker point man la de Henry Poupa yaa ngi déglu suñu kër radio Welcome to Vous aimez nos émissions Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 652 5335 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêt encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 652 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. masa guddee waaw voix des jeunes voix des jeunes di émission bu len radio sunu keur di jaglel yeen ndawu sénégal mo xam ci li ngay yëngu ak ci bépp domaine bo mën yëngu sunu keur talal na la microm fassé na la jappalé ngir liggéey liggéey gëna a voix des jeunes di émission bu amul xaj sen seen ya pas de sous métier mbokk yi sunu kër point com ànd sunu keur dimanche bu jot ci 10 h ci californie 17 h gmt 19 h à paris kon nak yow bo dé ndaw té développement réew mi soxal la dimanche bu jot na nga ko kale ci sunu keur radio ndax kat déglu sunu keur njëriñ nan la mën ngeen bokk tamit ci waxtaan bi wooteel 001 920 786 85 30 wala bu fekkee da nga am ay laaj yooyu yónnee mën ko yónnee ci sunu kër point wala sax am easy ajoutel radio sunu kër ci skype lépp rek sotti seeg def si la du fenn fii la sunu la maison gaañi kër gi Sunuker sunu kër Radio Sunuker Cœur, juste pour vous servir de la bonne musique. écoutez rajo sunu kër rajo. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Pou Passis radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité.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 émission bu leen di dëkkal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral sunu kër compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 0

ba yàlla def bu yobuma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie de mine et de l'hydraulique première rentrée te amu si leneen lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement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

xool yi mais kor yi nga fekkoon ci parti bi mu nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mos a jox bëgg bu tëb dem bu recevoir la dañ ko lu tax nga jox loolu man danañu ma jaaxal ne bu ko defoon jaaxal ma leen man am ñu xamee woon présidente waaye nag yàlla ko xëccu loo ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal la loolu day wax dëgg yàlla xam nga a diis parce man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ma daal il nga dem foofu parce que loolu moo gën a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 l'info autrement tey dit di jeudi le 2 novembre 2017 ñu and ak mbégte bu Ré reuy reuy ginnaaw buñu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di len balu àq di len bal di len ñaanal jamm di ñaanal sen yen ñi nga xamantene bu waxtu wi joté ngeen bayyi lepp li nga xamantene mom ngeen di yëngatu wala ngeen boole ko ak diñu ñu déglu ngeen nekk ci salon de coiffure yi ñi nekk ci salon de couture yi ñi nekk ci seeni bureau ñi nekk seeni kër ñi télécharger sunu application bi tudd sunu kër fm nu fay déglu ñi dem ci ci sunu situ internet di 3w point sunu kër point com di ñu fa déglu waaye ñii tamit ah, nekk fii ci Facebook bi Facebook live ah, ma leen di nuyu yéen ñëpp ah, ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñoom Mamadou Sao ak La Plume maa ngi leen di nuyu di nuyu Soxna Adja Ndiaye nekk foofu ca Florida nul ñu wa Florida wa New York wa Los Angeles ak sénégalais yi nekk ca France ca Angleterre Espagne Italie Suisse Grand jaay ñu ngi lay nuyu euh, di nuyu wa North Carolina ak rawatina nak ñi nga xamantene ñom ñoo tax ñu nekk Senegal, di wax wa muy wa Sénégal nga xamne sen bien-être rek ñu Eh, ndax mbokk yi nu fa bàyyi xarit yeeg am di jàmm yi ñoom ñëpp seen yitte ak bëgg ñu expérience loo xamante ne xëy na ñi nekk bitim réew am na lu ñu ci expérience muy mën a feebar rek di faju boo feebaree walla liggéey ba yàlla dimbali la nga retraité sa retraite boobu am lu mu lay jariñ Euh, parce que droit la bo xamantene rew mu nek daf ko amel ay citoyen mo waral ñuy yëngatu ci améliorer la condition de vie des sénégalais fuñu mëna nek nak ci aduna bi daf ñu intéressé wara intéressé aussi ñi nga xamantene ñom lañuy wax les politiques mo waral fuñu mëna tollu euh mbirum Sénégal daf ñuy intéressé moo tax ñu ciy wax moo tax ñu ngi nuyu yéen ñëpp rek fu ngeen mën a nekk tey ji nag ci biir émission bi dafa am ay mbir yu am njariñ yoo xamante ne dama ko bëgg a waxtaane mbir yu ma amal njariñ bokk yu ma amal njariñ ndax daanaka euh, li ñuy nuyoo lu ëpp ci ci seen émission bi nga xamante ne moom moo di l'info autrement ñu leen koy defal du lundi o jeudi à partir de 16h GMT lundi bi di mooy lundi bi ak jeudi bi mooy émission direct yi ñuy def mardi bi mercredi bi mooy rediffusion yi nga xamante ne dañ leen koy def ñu leen koy defal fii ci seen point sunu site www.sunuker.com ngeen ñuy dégloo ci kër FM lépp li nga xamante ne dañ ko fi waxtaanee. Ah, da ci bok ay sujet yo xamantene dañu ci interpeller buñu ci ci interpeller d'habitude duñu ci mëna wax ci saasi sax ci moment yi ñu ci interpeller ndax dafay am yenn yenn interpellation yo xamne buñu ko ñu da fay laaj recherche wala mu laaj tànn sénégalais bo xamantene profil bi muy yoré pour mëna répondre à cette question précise mooy diw ñu dem daal di seet diw bu fekkee diw mënul a ñëw dinañu jàngal loo xamante ne dinañ ko wax ngeen koy dégg pour répondre ci ay questionnement yooyu waaye ñun ak yéen ñoo yem ay sénégalais lañu ay nit ñu ñuul lañu euh, euh, daanaka li ëpp ci li ñuy doxalee mooy fugg li ëpp ci li ñuy doxalee mooy bëggeel bu ñu am ci sunu réew euh, li ëpp ci li ñuy doxee mooy xëy na dem ak Pastef rek waaye li nga xamante ne moo lal mbir mi yépp ak cawarte gi moo di bëgg réew mi dem kanam rek saa yu ñu expérience lu am njariñ ci bitim réew ñu yéene ko sunu réew bëggoon sunu réew dund loolu lu ñu gis lu baax muy une bonne organisation politique wala même ci benn gouvernement organiser ko ñu bëggoon sunu waa réew ñoom it expérimenté ko adduna bi nag dafa jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo ay pôle génn ci ku ci nekk am ay positionnement yu nu am par rapport ak adduna bi nu muy doxee waaye mu mel ni ñun ñun nit ñu ñuul ñi ba léegi bëgguñoo bokk ci yëngatu-yëngatu boobu mooy maanaam ba tey xamaguñu sunu gëdd xamaguñu sunu rôle bi nga xamante ne moom lañu ñu war a jouer dégg ci monde bi ndax danoo màgg judd ñu ñuy jàngal mbirum esclavage nga gis esclavage de l'exploitation de, des hommes par l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme. ñu gis ne am na réew yu bëri yo xamante ndaysan daf leen profiter tay da do ñu pauvreté mukk ndax dañoo dem ba confortable ci exploiter ay nit waaye nit ñi nga xamante ñom ñoom exploiter moy nit ñi nga xamantene ne joxuñu seeni bop ay valeur ndax demb amna ño xamantene dañ leen doon exploiter waye tay kenn ñemewu leen exploiter ndax bo leen naré exploiter ñom danaka deret ngay naan deret ndax deret bi touru day bari ba ndox mi nga xamantene mo wër aduna bi sax day mujj xonk kon boy naan ay deret ngay naan ay deret te nit nak bugul naan deret moo waral ñooñu nga xamante ne démb bokkoon nañu ci ñi ñu doon exploité ci système bi ñu tegoon muy l'exploitation de l'homme par l'homme par la force nag am na ñoo xamante ne ñemetuñu leen ko def waaye da ci am benn xeet boo xamante ne ba tey bëgguñoo bokk te munu bëgguñoo jéem a nànd ne ñu ngi leen di exploiter exploité d'une manière moderne moy ñun les africains makoy tambalé sax ci sama dëkk bala may togn ñeneeni dëkk parce que sama dëkk moma ma intéressé motax ma ci wax gis nga aduna bi ni mu tëddé dafa am ño xamantene yalla daf leena jox ay avantage euh, mais avantage yi nga xamantene daf leen ko jox ñom sant ñu ci yalla parce que sant yàlla ci avantage bi mu lay jox mooy nga exploité ko ba jariñoo ko mooy mu yombalal la sa ngëm yàlla te nga ànd ak ngëm yàlla nag ñàkk gu tar da koy yàq ñàkk gu metti ak a ak ak mën a yàq ngëm yàlla ak mën a yokk bàkkaar ñàkk gu metti ñàkk gu tar dang koy xol ci suñu système réew yi rek ni muy doxé réew mu la ci gëna pauvre mom mo lay gëna am ay croyance superstitielle yo xamantene amul nit ben njariñ ndax li la ci yobbu moy ñak bi nga ñak dem nga ba do gëmati ne yalla mën na la won ay solution nga genn ci da ngay dem ba to yaakar ne bo yalla yalla yalla mën na dindi da ngay dem ba yaakar ne boy jubal sax da ngay perte sa temps ñàkk gu tar moo koy waral mais loolu dara mënu ko justifier lu dul dangay ngay xool les pays modernes démb ak tey rek wala boo fekkee fekkewuloo ko nga jàng seen histoire démb nga comparer ko ak tey pourquoi les gouvernement di dimbali nit ñu pauvre ñi te am na ci ñoom ñoo xamante ne dañuy pare sa du ñu bëgg liggéey dañoo dem ba fil confortable ci aide bi leen gouvernement di defal te gouvernement yooyu dañuy xam ne ñii dañoo pauvre de waaye xam nañu ne aussi ne seen pauvreté malgré ñoom li ñuy nekk économie numéro un ñii bañ koo jël avantage bi ñu am ci réew mi donc ñoom seen wàllu bopp confortable nañ ci aide bi ñu leen di jox gouvernement bi xam na ko de waaye teewul sañu leen a bañ a jàppale sañu koo def ndax xam ne pauvreté accentuée bobu bu continuer ni mu mën esprit nit ñi ni mu mën créer ay superstition ni mu mën a seeni esprit ak seeni xalaat muy transcender dans le néant di di dem dans le vide di génne ay caricatures inexistantes yoo xamante ne du jëm lu dul taal réew ma dañu koy xam waaye ñu ne ñii de parce que bu nous mën développer ay maladies yoo xamante day ba ci ñun ñu de mar moo waral muy ci budget di financer di subventionner ay activités yoo xamante ci société la jëm ci membre société gouvernement yu mag yooyu ba dem na tey ba li waral ñun suñu population yi di bëgg a jóge ci réew yi nu nekk tey di dem ci yeneeni réew yooyu nga xam ne fan lañ koy defee di ci avantage wu loolu rek mooy waral li ko motiver loolu rek moo waral li ko motiver dem beneen réew xoolal ñaata mag ñaata doomu aadama sénégalais africain en général ñooy dem implanté wu ji bitim réew di rey seeni bopp pour que seeni yaay ak seeni papa seeni tante ak ay umpaañ ñëw rejoindre leen ngir mën a faju xanaa léegi la système yi soppeeku rek ñuy laaj nit ñi ay kayit waaye ay nit yàgg nañoo jóge bitim réew di ñëw ci réew yi organise seeni réew pour lenn rek moo leen fa indi ngir faju nit ñi ñëw di fay ngir mën a am seen doom mu juddoo ci réew yi lu waral loolu loolu mooy ay questionnement yoo xamante ne nit ñi war nañu ko laaj de di daw pauvreté di daw seen peuple pauvreté yàlla may ñu loo xamante ne bu nu amoon fulla rek mbir mi day soppeeku ñoom ñooy jóge seen réew di ñëw ci ñun ndax nit ñi dañoo dem ba nga xamante ne ñii ñu nekkal ci seeni société dañoo nekk une société robotique seeni liggéeyukaay yépp léegi ay robot lañu fa def ak ay machine dem na ci ba ci yore ay moyens de transportation yoo xamante ne c'est robotique nit du ko dawal ñuy jële nit ñi place A di leen yóbbu place B dugg ci modernisme boo xamante ne léegi nit ñi sax soxlaatuñu leen waaye soxla nañu waaye loolu da ngay da ngay yaakaar ne soxlawuñu nit ñi waaye li ñu soxlaatul mooy nit ñuy jóge fenn di ñëw di feesal seen réew yi ñoom li nu bëgg mooy li nu manqué ci seeni réew ñu fekk la ci sa réew ak sa produit yi nga am ñu jël ko ñu liggéey loola ba mu nekk un produit fini parce que bu njëkk ba dañuy ñëw jël benn produit boo xamante produit brut la brut à l'état brut la ñu koy jëlee daal dem liggéey ko produit fini doo ko consommer waaye légui suñu réew yi la ñukoy koy parce que xam nañu la transformation de certains produits fay am ay produits toxiques wala chimiques yu ñuy utiliser yoy da fay am ay effets négatifs ci seeni seeni santé ñom ndax am na ay ay sociétés yoo xamante ne ba tey ñu ngi leen di yóbbu tribunal ñuy fay seeni bàyyi wala seen maam maladie boo xamante ne ci liggéey ci usine bi lañu ko jëlee ba tax na bu ñu lay bu ñu lay embauché sax dañu lay signaloo ay kayit ne la liggéeyee fii feebar tel ak tel ak tel ak tel mën nga ko fee jëlee ñu bañ a éviter loolu liability bi leen ciy dal ñuy ñëw léegi suñu réew ñi lañuy ñuy exploité lépp or bi fa lañ koy exploité doo ko yóbbu jamaa bi fa lañ koy exploité doo ko yóbbu pétrole bi fa lañ koy exploité doo ko yóbbu ay taxul ñu nekk ci état pauvreté de semaine yële ñu génn li tax ma nuyoo lii sax laay explique semaine yële ñu génn dafa amoon conférence de nations unies bu fi am malen di expliquer ne d'habitude de président yi ay naataangoo la ñuy doon parce que xam nga ay nata la ñuy wax mais yéen xam ngeen suñu président yi ak ay président yenn réew yu mag yi ñoom duñu seen ay naataangoo parce que sa naataangoo da ngeen di tok ngeen discuter ku ci nekk défendre sa intérêt réew ñu avancer té loolu buñu koy def ci ay rencontre ci ay tête à tête la koy def mais du ñu ñëw daje ci benn conférence bu ñuy wax ne waa Nations Unies ñooy dajaloo ngeen daje ba pare ngeen war a ñibbi président bi wala jël avion ñëw seet si leen seen réew ngir waxtaan lu mu soxnaal seen réew mu boole leen yéen ñëpp nit ñu ñuul ñi <laughs> <laughs> non dafa reetaanlu sax billaahi mu boole leen yëpp yéen nit ñu ñuul ñi te pourtant buy recevoir président Macron du boole Macron ak la chancelière allemande di ci ben nek discuter parce que intérêt du du def du def bolé président Portugal ak bu Espagne dajalé len bolé ci bu Italie di wax ak ñom lolu président Amérique qui bu fekké né doonul groupe bu ñuy groupe G20 ñuy def lolu duñu ko def de lolu rek lañ di en groupe té discuter c'est l'intérêt commun des nations occidentales ni ni diviser monde nous ni le exploiter monde nous nous discuter hein. nous nous fa jox parole nous dañu la pour que nga renforcer cette politique de domination Nous dajale les ñoom président nit ñu ñi comme nous ma leen ko waxee Sénégal rek xam président Sénégal di nangu Moi, le président Mali di nangu moi, la président Guinée Bissau di nangu xam nañu moom la président Guinée Conakry di nangu mu boole leen nag ñu ne kon jarul ngay perte temps di lakk kérosène di dem ci ku ci nekk parce que li nga leen di wax loolu la def li tax président Amérique def loolu am na intérêt Amérique li muy doon numéro uno mënut a dem sans l'Afrique mënut a dem sans les pays pauvres comme ni nga xamante ne France mënut a dem sans ses colonies ñoom xam nañu ko waaye respect bi ñu ñu amal bi ñu ñuy ñàkk amal mooy ñàkk respecté ñun bi ñu ñàkk respecté suñu bopp ku jóg rek ci ñun lay basé wu ngir defar son économie ci ñun lay basé wu am ay ressources naturelles am ay ressources humaines am ay ressources pétrolières lépp loo xamante ne xar baax la bu yàlla jox nit ndax yàlla buy dimbali ay peuple ci loolu la leen di dimbalee génn ay matière yoo xamante ne kenn du ko gis fenn nit du ko créer yàlla moo koy créer te xam ne nit ñi soxla nañu ko mu génn ko ci sa suuf loolu la yàlla di defal ay ay ay doomu aadamaam moo tax ñoom mënuñu dem sans nu waaye ñàkkal bi ñu ñàkkal suñu bopp fayda moo tax ñu ne nañu leen dajale rek ñoom ñoom groupe defal leen benn théorie da legi léegi léegi léegi léegi ñu dem dama liir démb Qui presse bi ñuy expliquer di wax ne amna décision pour les pays de la CEDEAO pour accepter le Maroc ci CEDEAO l'intégration du Maroc à la CEDEAO ñu sommes vraiment léegi comme que Maroc moo toog ba mu yà CEDEAO kan lañu ko créé ak a yàgg yàgg na de gars yi waaye CEDEAO ñan ñoo ci nekk yan pays ñoo dajaloo nekk ci biir CEDEAO ngeen gis ci ay dëkku arab arab yi am nañu seen biir am nañu seen organisation bu ñuy liggéey seen biir de ñun en Afrique de l'Ouest te ñu xam ne CEDEAO ak Afrique de l'Ouest duñu benn parce que am na yeneen pays yoo xam ne nekk nañ en Afrique de l'Ouest te bokkuñu ci CEDEAO dañu ko xam ay nit ñu ñuul rek ñoo ci nekk te am na jamono jële ci ginnaaw ma leen di expliquer liggéey bi nga xamante ne buuru Maroc yàlla xam na ne contre ma ko de damay bëgg a woote rek pour beaucoup plus de vigilance marocains yi ay xarit rek lañu te sunu ay mbokk lañu ñu ñu jege waaye li mbirum réew la ak lan mooy intérêt réew ak lan mooy bénéficier sunu réew yi loolu la ñu war xam ma leen di expliquer ne leen rôle bi nga xamante ne xadafi doon na ko joué ci en afrique en afrique noire parce que xadafi dinaa ci wax tuuti rek ñu bëri ci ñun yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu bëri ci sunu réew yi damay gis sax bu ñuy wax les jeunes yi nga xamante ne dañuy bëgg a nekk jeunes révolutionnaires dañuy inspiré wu ci di ko créer ay fen sax loo xamante ne teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci xam-xam di jël Xadafi ba ko teg benn héros boo xamante ne dañ koy yóbbu niveau boo xamante ne sax yeggu fa woon ndeysaan billaahi yàlla xam na ko di ko fenal ay fen yoo xamante ne ne loolu la def réewam te boo waxee ak ay nit ñu dëkk ay réewam ñu weddi la li nga wax nan la boo juddoo rek am nga appartement soo juddoo rek sa école dañu la koy fayal boo paree jàng ba pare ñu financé la nga takk jabar jox la kër sa première kër ñoo la koy jox <laughs> mais ay fen yu metti yoo xamante ne lépp lu ñu ci jublu rek mooy jël benn nit rek ba koo yëkkati teg ko te te rôle bi mu doon joué en Afrique ak rôle bi mu doon joué réewam wute na de wute na nanu ko xam nanu fàttaliku ne dañoo signé woon ay contrat moom ak ay Europe pour ñu baare nit ñu ñuul ñi nga xamante ne ñooy traverser loolu bokk na ci lu mu lu mu lu mu liggéey te buuru marok tamit ci yoon woowu la nekk mu ngi ciy liggéey bu ñu ñëwee en afrique noire xam ne ñun ku basé ci ñun rek am doole bu lee militaire nga soxla on est un milliard d'âmes mais xadafi loolu moo ko andi ci nit ñu ñuul ñi de du leneen gars yi nañu waxante dëgg rek ñu waxante dëgg ñun ku bëgg ñu déglu la ñun ngay àndal li leen di motiver en fait duñu ko xam dañoo xam ne ñun dañu ñoo jàppee comme ay bàyyi ma nit ñoo xamante ne boo leen sourire rek ñu sourire rek ñu ne yaa baax moo tax ñun rek la ñuy wéeru de côté militaire bu ñu xoolee ne am nañu un milliard d'âme yoo xamante ne sa loxo la ñuy nekk ku la neex nga cokkaas ko loolu mais gars sunu développement ak sunu indépendance dëgg dëgg dëgg ñu koy jiiñ ay nit naan dañoo def nangam ak nangam du dara lu dul ay fen lu leer nag moo moom laa lay wax parce que man duma dugg ci ay coup yooyu nga xamante ne ay waxu révolutionnaire yu vide te nit ñu ñuy jël bëgg leen def symbole bi mérité wuñu ko léegi nag le roi du Maroc ci yoon woowu la nekk xam na ne succès bi Kadhafi am politiquement en Afrique nit ñu ñuul ñëpp bëgg Kadhafi ci ci ci xolom ci ay jeu yoo xamante ne rek joué na ko politiquement di jël alalam di ko def ci ay politiciens africains yi nu jiite ni nga xamante ne d'ailleurs noonu la ko l'Occident di defee ki leen intéressé moom la ñuy teg ci kanam moom la ñuy financer sa politique am nañu renforcer renverser ay gouvernement élu démocratiquement ñoom ñoo leen di financer ndax ku ci nekk sa nit ngay nekkal rek léegi nak buru Maroc bañu créer créé CEDEAO ak yag agna àgg de ndax ñom ñu ngi adopté sen protocole yag na ci année 60 70 dix yi mais Maroc fan la ci jamono CEDEAO di exister mu bëgg a ba tay mu muy demander pour adhérer ci bir CEDEAO ci réew moo xamante ne réew yi ngay fekk ci yépp muy muy muy Burkina Faso muy Bénin di Côte d'Ivoire di Gambie di Guinée Bissau di Guinée Conakry di gana di Libéria di Mali dégg nga ak waa Niger ak waa Sénégal ak Togo Sierra Leone Cap-Vert ñoom ñëpp doon ay nit ñu ñuul dëkku nit ñu ñuul ñi la daa à l'exception da nga naan Cap Vert ñoo ci xaw a ñu prévoir na ñom en 2020 dañuy lancer seeni monnaie Maroc ñëw ne day dugg technicien yi sax ñu ngi ciy wax économique yi ñu ciy wax na économiste yi ñu ngi ciy wax parce que buuru Maroc dealer la wax ma dealer ay dealu drogue ni moy businessman la té ci suñu réew yi réew mu ci nekk amna na lu mu fa am bu ñëwee seq ak Macky Sall li mu seq ak moom bu suba noonu lay demee seeti Alassane Ouattara noonu lay demee seeti ñoo ñëpp parce que seen réew yi dafa am yoo xamante ne dañu da ko fay def business mais aussi xam na ne ci nit ñu ñuul ñi rek nga mën a appuyé wu pour que économiquement nga riche parce que ñun ngay liggéeyal à moindre coût ñun ngay liggéeyal boo ñu sourire sax ñu baal la <laughs> ñu baal la ne la bul ñu fay ñun rek ñoo bëggul xaalis ah gars yi ñun rek ñoo bëggul xaalis ci ñun rek ngay gisee ñuy ñëw di def benn affaire naan la dama koy def par passion te loolu doon métier buy créer ay milliards ñu ne ñun bëgguñu xaalis quoi ñun lan lañu bëgg rek mooy gaay di nu gërëm moo waral bu gan bitim réew ñu ne dañu koy teral wàcc sunu néeg yi te yow boo demee seeti gan boobu doo am li mu la terale du la terale ni nga ko terale yow ñun bëgguñu xaalis moo tax ñëpp dañuy ñëw di appuyé wu ci ñun ngir mën a yëkkati seen économie dem ñu ñàkk fayda nag ba nga xamante ne waroon nañoo laajte questionnement bi mooy lan mooy intérêt Maroc ci biir CEDEAO loolu jar naa laajte lan lan la toogee ba at yii yépp CEDEAO existé le roi du dëkk ci royauté judd ci màgg ci dem ba moment bii mu ne dafa bëgg dugg ci biir CEDEAO nga xamante ne ñoom seen force financière bi ñu am ak compétitivité bi ñu am am na leneen loo xamante ne moo leen motiver te ni ko économiste bi waxee nee na bu ñu dof dof bu ñu dof dofloo ba Maroc dugg ci biir CEDEAO ñun économie dëkk les pays membres yëpp dina ko asphyxier ah parce que dafa am lo xamantene parce que te lolu yomb na gëm de gaay li tax mu yomb gëm moy réew yi dafa am lo xamantene dañu koy soxla moy buñu produire ay mbir ñu jaay ko té ñun sunu marché marché non régulé la boo xamante ne kenn régularisé wu ko kenn ñëwul ne la prix lii lii lay jar su ma xëyee Amérique ma bëgg dem jënd ji benn affaire affaire bii may dem di jënd ji xam naa ñaata lay jar bala may dem xam naa lu muy jar kana moo mën a wax loolu ci sunu réew yi même oto bi nuy jaayee Amérique boo demee Sénégal beneen prix la fay nekk waxuma oto yu bees nag oto rek laa la wax ndax nit day dawal oto France ba oto bi yàqu ba auto bi am fukki at wala mu jege juromi at valeuram daanu fofu te boko yobbo senegal nga jaaye ko lo xamantene day nek moitié prix auto bu bes lolou li wax ni ñun ñep xam nañu ko ñep xam nañu ko donc dañoo soxla ay débouché yo xamantene ci sunu marché la te sunu marché yi moy marché yo xamantene kenn régulariser wu ko dañu ko bayyi manam marché la yo xamantene dal l'offre et la demande deugentane ndjay fa lay appliquer wo fof lay appliquer wo auto bi buñu ko dawalé bo même cellphone même téléphone ah, fi ben téléphone jenn nga jëndé ko 800 dollars 800 dollars iphone bu bess tak nga jëndé ko 800 dollars wala 900 dollars yu bess yi génn 930 lay nga yore ko bamou mu neex la te loolu c'est moins de cinq cent francs CFA nga yore ko ba neex la nga yobou ko Sénégal jaayat ko lu jege prix bobu mbokk yi parce que nous nous nous sommes dans le secteur informel secteur informel bo xamantene gouvernement bi organiser wu ko pour que consommateurs yi nek à l'aise ci li ñuy liggéey motax rew mu juk rek bu bëgg développer so bëggee mu gaaw ci sunu sunu rew yi ngay ñëw di fa jaayé sa ay produits day gaaw a jar moo tax nit ñi di dem sin, di créer ay marque yu fausse di ko andi sunu réew yi di doon ay millionnaire ak ay milliardaire parce que sunu marché yi marché informel la secteur informel la maanaam nit ñi loo leen jaay rek daanaka lu jóge beneen beneen réew dañu koy jaay est ce que loolu moo andi maroc ci sunu moo andi maroc ci sunu organisation économique bii questionnement la boo xamee ne les techniciens ñoo ko war a répondre de wala yéen ñi am xam-xam te mën a ñëw jàngal ñu ci rajo bi ndax Maroc dafa bëgg économiquement ni nga xamante ne noonu la France di exploiter les colonies d'Afrique ces colonies d'Afrique ndax Maroc dafa bëgg xam ne loolu moo risloo France mu ñëw bëgg entrer ci biir CEDEAO moom ngir bëgg bénéficier wu ci loolu questionnement la léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñun la affaire bi di dal nga xamante ne li ñuy njëkk a xool rek mooy rapport yi njiit yi di yore ndeysaan seen biir njiit yi li ñuy dil ñun xamuñu ko de <laughs> ñoom li ñuy dil seen biir ñun xamuñu ko loolu nag war nañoo yee questionnement bu may ubbi la bo xamantene ne na bok ci lu ñuy pour wan len ne dajale bi Donald Trump dajale euh, les les les les leaders les présidents africains noirs ci ben salle offrir leen lu ñu lekk wax leen soxlam ngir éviter déplacement bu muy def ci seen réew yi niko George Bush défé won niko Bill Clinton défé won niko Barack Obama défé won pour mu éviter def loolu mu dajale len ci ben saal jox len ay lek ñuy lek mu profito waxal len ci ay soxlam parce que xam na ne de toute façon da ngeen di ñew ci ouverture conseil de sécurité bu Nations Unies Xadafi it bi mu bëggee politiquement am doole ci ñun la dem wéeru ji buuru Maroc nag toog na moom it ba mu neex ko muy jetewu ci loolu jar na loo xamante ne lu ñu war a yeewu la waaye wan nañu ne l'exploitation de l'homme par l'homme moom jeexagul ndax même boo demee ci sunu réew yi sax dafa nekk c'est pas seulement au niveau des états lay xewee de li xew au niveau états des états mooy la répercussion de ce qui se passe au niveau de la société c'est la photocopie de ce qui se passe au niveau de nos populations ndax réew mi lenn rek moo fa nekk de xeebante ak exploité wante du leneen xeebante rek ak exploité wante loolu rek moo nekk ci réew yi de moo tax ñoom bu ñu demee ci kaw ñu xeeb leen exploité leen waaye bubbul ci ci ci dans tout ce brouhaha là

gis nga yàlla bu fekkoon dafa bëgg ñëpp ñépp nekk benn nii àndandoo li tax mu jël nit ñi ñii mu xees loo leen ñii mu ñuul loo ñii mu am nu mu leen nuroo pour que nit ñi liggéey en communauté rek te gis nga ñu xees ñi ak ñu ñuul ñi dañuy nekk ci ay distance yu sorente dañu leen a dajale ñu nekk ensemble ñoom ñëpp ñoo nuroo moo tax ñoom ñooy liggéey seen bopp ngir dimbali seen communauté ci seeni boor ku ci nekk liggéey ci say boor pour quoi ñuy bàyyi ñeneen di jóge seeni boor ñëw di exploité ñun suñuy boor loolu moo doon laaj bi pourquoi ay nit di bàyyi seeni boor di ñëw ci suñu boor ñun di ñu te ñun ku ñëw sourire ñu rek ñu ne def ñoo bëgg am na ay saay-saay soo xamante ne suñu xamoon seen politique ni mu néfaste ci ñun waye tay ay leader lañu leen def di leen créer ay fen di wax naka la naka lañu topato toppatoo seen waa réew te fa démé kenn ñepp akoy wéddi weddi ñi lay wax yépp loolu mosuñu fa dund mosuñu fa sax taxawaalu mosuñoo jël sax avion bu fay romb ci sunu rew mi nak fan yi coow lu bari mu nga fay am jëm ci wàllu politique pour ma dugg rek ci actualité national bi ndax li ma doon wax ndànk sànq au niveau international mooy jeu boo xamante ne ñun ñëpp xam nañu ne euh, moo xew surtout ci wàllum géopolitique waaw ñun ñëpp xam nañ ne moo xew mais ci sunu wàllum réew dafa am euh,

waaye defuñu li tax loolu du war a mën a am defuñu ko ñëpp dañoo toog en spectateur te loolu mooy li nga xamante ne juróomi at yi ñu génn moom moo xew Sénégal mooy ku ñuy mbugal rek wala ñu lay sonal ci wàllu politique gars dañuy toog rek di di di di euh, di witness maanaam di témoigner ni ñuy jàppe benn doomu adama yàq ko corote ko corote ko corote ko ba mu dee politiquement ñu éliminer ko sanni ñu tok di témoigner duñu def luddul ay wax rek ci presse bi lañuy génn presse bi yakal nañu lu bari yakal nañu lu bari parce que presse bu la dul informer daf lay jeter ci ci ci nelaw manam dalay lo dalay endormir ngay nelaw la réalité do ko xam té ci presse bobu nak lañuy dund moy nit ñi dañuy dugg di wax rek naan wala khalifa sall ni ñu ko jàppee nii du yoon khalifa sall du moom rek moo moo fi am caisse d' avance ku ne lool rek la ñu fi nekkee di wax du matin au soir waaye xamuñu ne après khalifa sall am na keneen ku nu war a galgal ñoom xamuñu ko xamuñu ne après khalifa sall am na keneen ku ci tegu parce que ki nga xamante ne moom mooy la personne la plus menaçante moom la ñuy njëkk a bu ñu paree dem seeti keneen ki ci tegu ki ñu ki nga xamante ne moom la ñu gën a njëkkoon a ragal moo doon Karim Wade bi Karim daanoo ci lañu ci teg Khalifa Sall keneen ku defe ne nag yaa ngi takk sa masque di nga ci génn su xalifa sàll bu ñu ko jugé ba pare ci yow la ñu jëm ndax boo defee benn mbir réussir ko rek dootoo ko bàyyi nee nañu li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee te jig na la te nguur gi ñu fi nekk ni mu réussir à dompter la population sénégalaise dafa jaaxal ku yàlla bind ñëpp la jaaxal ñëpp ñëpp ñëpp la jaaxal te pourtant nit ñi soo wéetee ak ñoom dans le privé ci ay conversation yi ngeen di am li ñu lay wax ak li nga xamante ne moom la ñuy génn ci biti dafay wuute de te ay kilifa nag laay wax ah en privé su ngeen wéetee ngeen di wax li ni wax ñoom ci jëmele ko ci nguur gi sénégalais defal rek échantillon nga jël nga def statistique nga laaj sénégalais yi ndax kontaan nañu kenn kontaanul mais kenn mënut comprendre pourquoi ñëpp ne tekk ci donné bi ni tambali na ci ca ñi nga xamante wax ne ñofi créé won M23 hein ah. ñi nga dañu ne ñom ñoo créé won mouvement M23 ñi nga xamantene nenañu ñom ñoo doon yëngal Abdoulaye Wade ñi nga xamantene ñom ñoo ne ñom ñoo fi jëlé Abdoulaye Wade ñuy jiñ ay nit lu leen neex rek di leen tecc ci kasso bi te du am suite ñuy jappalante nak seen biir te tay ji ni képp koo xamantene takal nañu la ci affaire alal ci ñoom la dem ñoom politiciens yi gis ngeen le cas de Massata Diack ak de Lamine Diack gis ngeen ko alal ji nga xamante ne yëpp corruption yi ñu leen di jiin yëpp moom la ñu jël financé ko ak ay politiciens moo tax nguur gi jël tànkam teg ci dossier boobu ne du libre ndey ji seex ji waaye koo xamante ne yow bokkuloo ci ñoom wala da leen di menacé ñu seetaan la ñu yàq la ñenn nag ñi nga xamante ne ci opposition bi dañu bëgg bàyyi nguur gi mu éliminer Euh, d'éventuels concurrents yo xamante ne même bu fekkee ni ci opposition bi lañu ñu nekk ñu bayyi ñu détruire leen ndax ñom ñu mëna a ndax ñom ñu mëna a nek leader opposition bi motax yenn xex yi nga xamantene dañuy wax sax dañu koy def pour la libération de de Khalifa Sall c'est pas sincère xolam mbooloo yi ñu dajale yépp ay ay ay groupe yu ne créé nañu ko waye c'est pas sincère parce que ki di créer groupe bi wala ki cey wax mom c'est un politique te xeyna amna fo xamantene khalifa sall mu ko fay gêné donc ñoo bolo ñom seen biir pour xex lolu peuple bi nak dafa dem ba tu len ndax peuple bi dafa jaxle ma ngi deg sax ben ma ngi deg sax ndeysaan <laughs> ma ngi deg pap ale nya muy def ben chronique euh, euh di ci wax di fatali Mustapha Niass bi ko biñu ko dajalé momit assemblée nationale bëgg ko yóbbu kasso fekk mu nekk député ñuy dajé créer commission bii ñu créer Khalifa Sall de ngir lever son immunité parlementaire biñu ko woy diko ko auditionné loolu la wax loolu yag nañ ko wax fi ci radio bi mu ne c'est moi mais ce ne sont pas mes propos <laughs>

ñoom sëñ han mbàkke jambar ja nga xamne ne bu nit ñi jaxlé rek ñoñu lañ daan dégg ñuy wax mais yenn kilifa yi ñu yoré légui ni Macky Sall embarqué na leen bu yagg ñom ñep c'est des complices parce que li leen intéressé parce que xam nga la politique de Macky Sall moy dafa dafa téla a asphyxier sëriñ si xam nga yeen da ngeen koy fàtte da ngeen koy sauté étape bobu man nak dama leen koy fatali Macky Sall bi mu ñëwé les les marabu la njëkk ndax ñoom ñëpp lañu nangu seen passeport diplomatique ñoom ñëpp du ngeen ko fàtte li ma leen di wax ni du ngeen ko fàtte ngeen ko fàtte ñi ñu joxoon oto ñëpp mu nangu oto yi <laughs> ñoom la njëkk a toroxal ne leen nag léegi oto yi maa ngi ko gaare ci garage yi ku ànd ak man ma jox la ku andul ak man duma la jox passeport yi ñoo koy signé ku ànd ak ñun ñu signé la ku ak ñun du signé ana ci sëriñ si kan kan moo ci soxlawul passeport diplomatique sëriñ sépp nag laay wax ak seeni famille laa la wax nag bu fi wutal exception ñu si ñii ñii nekk ci télé yeeg ci rajo yi ñu leen di wax nag laay waxal ku ci amul passeport diplomatique sa doom am nga ko ba ci xalif yi la lay wax ah ku ko ci amul sa ay doom am nañu ko wala ay sa ay jarbaat ku koy weddi na nga ñëw foofu la leen Macky Sall njëkk asphyxié moo tax boo seen biir ñi leen wër duñu def lu di tag Macky Sall rek ñom la ñëk a asphyxier su ngeen di xaar su ngeen jaxlé ngeen da nga leen di xaar ñom ñu wax ndax ni sëriñu indépendant yi daan ko défé du ngeen ko dégg mukk du ngeen ko am du ngeen ko dégg parce que ku nga ñu nangu sa passeport diplomate ak sa ay auto dañoo am jëgu auto, talibé yi joxeetuñu addiyé comme bu njëkk ba parce que duñu ko jox ko xamantene day taatu lawbel politicien yi gaay amuñu xaaliss de motax bitim rew lañuy ñew di len di nax ñeneen ñi gaay gaay gaay am nostalgie gu Sénégal <laughs> ci ñoom lañuy ñew motax ñu bëgg voyage fu mu toll ni màggal Touba jege na muy lu am njariñ ci ñun ñi nga xamante ne ñoo bëgg sëriñ Touba waaye ñoom duñu ay sëriñ Touba de ñoom ñëppay woote nag di latte ay addiya defuñu ko fenn lu dul ci seeni bopp li ñuy laaj mais ndax ndax ci organisation màggal gi la jëm jëmu ci li ñuy leen di dajaleel yépp li ci ëpp mun naa la ko waatal ne jëmul ci organisation màggal gi yàlla xam na ko ndax sooy organiser màggal ngay wax ne ki nga xamante ne moo ko jiite nag laa la wax ki ko jiite di wax ne l'État a donné toutes les assurances pour un bon déroulement du màggal li waroon a ataa bi waroon a séq ak màggal gi yëpp joxe na ko te teewul wër ngeen bitim réew yépp di laaj ay alal te weer yàggul sax la wër jumaa ji yëpp ma nga fees ak ay ndox ak ay salte te dindiwu leen ko ana xaalis bi ñu leen di jox ngeen ne dangeen di organiser màggal xanaa xanaa màggal fu mu toll ni wa Tuuba waroon naa mel ni sax Médine ci jamono ci li fay dugg ci xaalis nag laa la wax affaire ah, ce c'est pas seulement pour la construction de mosquée de <laughs> mosquée ko defaluñ ko ko xari ay nit lañu defal te nit ñi nekk nit nit bala muy nekk nit day lekk mais di souffrir naka la ko affaire bi du ay affaire dajale te ñoom ñëpp ay commerçant lañu nak ñi nga xamantene ne ñoo koy organiser de ñu ngi def ak ay deal ak ay commission yow ki di organiser magal gi ci bopam mom candidat la won ci élection député yi ci ci ci dëkk ba ci dëkkam <laughs> mom politique mom président de la république la fi nekkal bëgg nekkal président de la république bëgg nekkal tamit nit ñi ñu lay jox ay alal nga ne da ngay organiser ay magal kan moo lay audit pour xam ne alal ji foofu la jëm te commerçant nga businessman nga moo tax état bi jàpp leen ci poñ ndax dañoo dem ba ñi ñu àndaloon bokk ak ñoom dañu leen a mais ay mbalit di dem bay wéeru ci jumaa ji ay nit di feebar sonn ndax salte bi amuñu amuñu amuñu lumière bu doy munuñoo lekk ba suur munuñoo dem sax ci ay dispensaire faju ay nit di amaase ay milliards te bu nu ko amee nag dañuy jóge Touba de dem dëkk ci Ndakaaru Njaay tabax fa ay maison blanche di dugal ay gel rek gel yi ngeen di gis ñi ñëpp ci télé yi ñuy téléspirkin ñoom ñëpp seeni ay taalibe la lañu ah ku ci bëgg connexion rek nga ne diw mii mooy sama sëriñ ndax mu dugal la ci connexion bi affaire bi affaireu connexion la de legui nak porto ngi deug sen porte parole bi muy wax nan ku yaakaar ne ndigal ndigal ndigalu vote dal manam xewwi na kon yow do mourid mom xamna ne mënul déterminer kan moy mourid ndax nit ñi ñu ngi douté de sa mouridité mom ndax mom Macky Sall la fi nekkal mom ak mom ak son bras droit bi organisé ñom ñoyam ñom politiciens lañu fi nekkal parce que so gisee ñu xey parce que tay bo xolé presse bi li ñu def moy génne benn wax bo xamante seigne sëñ da ko waxoon ñu bëgg ko justifier les propos bu porte parole bi nee ko koo da nga dangaa yaakaar ne joxe ndigal manam ci walu élection nga xamante borom baatin yu mag ya li taxone ñuko ko doon wax ñoom ñoo ko xam de billahi ñoom rek ñu te juumuñu mukk ca jamono bañ koy wax ci dëgg rek la ñu nekk waaye ñoom dañuy bëgg di identifier toujours ci ñooñu te ñoom yegguñu niveau boobu xenc wuñu ko ñeex waaye comme que ñu ngi nekk ci ay dil yoo xamante ne 2019 mu ngi jege te saay-saay bi jiite réew mi dañoo war a def ak dil ak moom bala mu leen di saay-saaye wala ñu bëgg a lekk xaalis ci moom wala mu tiital leen ñu ragal bëgg koo neexal ñu bëgg a wane moom aussi benn dépendance buy jóge ci moom pour que ñoom moom lu mu leen wax non ñoo lu nu ko wax mu def ko ñu bëgg ko wan ko pourtant ba léegi ndigal am na de te ñun 2019 mën nañu joxe ndigal pour ñu woteel la <laughs> donc li nga ñu dig def ko donc li nga warloog suñu dëkk bi def ko affaire chantage la nag affaire affaire sant c'est un langage codé du hasard de sëñ Saalu Mbàkke mu baax ma nga xam ne ci xolu jullit yépp la nekk Sénégal nga xam ne ñépp a ko bëgg soo bëggee gis kuy jooy sincèrement rek da nga koy tudd moom sëñ Saalu Mbàkke gars yi commencé jooy ndax ci seen xol lañu ko denc mu làqatuñu ay at yu bari ba muy mat dix ans léegi ngeen defe ne c'est un ñu jekki-jekki rek gi génne naa la ay propos nee na sëñ bi moo ne man politique defuma ci lenn waaye bis bu ko bu bu bu bi bu buñ joxe ndigal jote woon dinaa ko def waaye genre yu demee noonu daal ba pare moom mu dellu si ñëw ne kuy yaakaar ne yoonu murit maanaam joxe ndigalu vote dafa xewi kon yow doo murit ngeen eh, di font rek da ngeen defe yoonu sëñ Touba bi mën ngeen ko politiquer joxe len digal lu len téré joxe ndigal tay ku fi joxe ndigal di nga rus ndax amulen leen amulen vision bobu ngeen di gis li li xew xamulen ko sax ndax yeen seen suba sax xamulen ko yalla rek ko xam au ngeen and nek bloc jël alal ji nga xamantene mom la len mur moom la nit nit ñi yéene ko Touba ndax dëkku sëriñ Touba boobu nga xamante ne ci xolam la ko teg nga xamante ne xeex na lu ne dugg na ci coono bu nekk gàdd yenu na ko gàddaa ngir bëgg am tey dëkkam bi nit ñi di yëkkate avec fierté avec bonté de cœur alal di ko def ci loo xamante ne waruñu woon sax soxla di wax naan gouvernement bi promettre nañu le bon déroulement du magal waruñu sax wona yegg alal bi fan lay dugg ana kan lañuy ñom parce que gis nga fofu nonu transparence dafa amul de gaay dañ leen di jox xaaliss ñu def ko seen biir poos da nga sëriñ si nga xamantene ay nangami million mais ay 300 millions kan moko mëna duggal ci benn magal loolu dafa am sens 300 millions benn sëriñ nag laax de waxuma la pour murit yépp ay benn sëriñ ñu ne ay 100 millions 200 millions 300 millions te xolal ci benn ci benn surface bu ndaw rek lañu wara fété magal gi fofu nonu nañu gaay fi xaas bi du dugg duñu ko wax te ku ci nekk nag yaay dem di latte de képp koo xamante ne ci famille boobu nga nekk da nga defe ne yow foo nekk ci àddumina rek da nga war di laaj nit ñi ñu lay jox loolu fan lañu ko teg man loolu laa mënta comprendre te alal bi ñu leen di jox ko def ci li ñu ko war def dañu mujj dellu si dem di taatu lawbeel politiciens yi quoi te daana li ko fay dugg ci ay budget boo ko seetee moom ak budget président de la république bi ñooy tolloo yàlla xam na ko waaye comme que dañoo bari si siisante di xëccoo di concurrenceante dara dara duñu ko defal virus sëñ Touba bi dara duñ ko defal waa Touba dara duñ ko defal taalibi sëriñ Touba yi dëkk ci biir Touba ku ci wéet rek yaa ngi woo nit ñi di leen laaj ay xaalis ñii di tukki di tukki di laaj xaalis ñii di woote ay jàng di laaj xaalis waa commission ñii organiser ñoom it di woo gouvernement bi di laaj xaalis bu bu gouvernement bi deful ñu ne xoola bu ndox manqué pourquoi ñuy wax ne gouvernement bi la te yéen laaj ngeen ay xaalis dajale def ay conférence woo ay ay hydraulique pour ndox mi di ñëw wo ay électricien pour ñu takal leen courant mais buñu ñu leen joxul courant bi gratuitement sax war ngeen ko mëna fay parce que amna alal bu dugg pour lolu mais malgré alal bi di dugg de xolal dañu naan gouvernement bi defu fi dara dal di xolal jaxase peuple bi ak gouvernement bi mbirum mbirum say say bo xamantene mu ngi ci mbir yi lo xamantene duñu ko leral mukk léegi nak li ñuy préparé ñom ñoom ñoo xam waaye bu fekkee yeen yeenay joxe ndigal joxe len ndigal rek joxe len ndigal ndax nit ñi dinañ len déglu wala déet da ngeen koy joxe da ngeen koy joxe te su ngeen ko mënon nak da ngeen koy jox ko xamantene ne du gouvernement bi parce que ndigal yi ngeen fiy dégg yépp ngeen koy joxe du ngeen ko jox kenn lu président de la république bi xana gisoo léegi ablaye wadd niñ koy apostropher ama l'histoire du Sénégal l'histoire des marabouts du Sénégal sax laa lay wax boo ko dee xool gis nga quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom du ñu ànd ak lu dul ku jiite réew loolu du bëgg sa réew nag Issa sa micro s'il vous du ñu ànd lu dul ak boroom ki jiite réew mi Ablaye Wade bi mu fi jógee yàggagul mais xoolal ñëpp fàtte nañ ko ah léegi kenn rek la ñuy déroulé tapis rouge bi kenn rek dem nañu ba seen benn député boobu nga xamante ne dañ koo dugal ci mbir mi mu bees fu mu toll ni defe na ne arrogance moom mooy doxal mbir mi nee na ablaay bu jógatee touba dana koy toroxal waaw te démb moom lañ doon lalal tapis rouge gaay ku nekk ci nguur gi rek yore réew mi prédiction prédiction yi ni joxe di yaakaar ne ñoom ñoo yore ay prédiction divine ñoom kooku la nu koy joxa ak a neexoon ñu suba rek ne joxe nañu ndigal dégg nga Idrissa Seck la ñuy fal wala joxe nañu ndigal Karim wadd la ñuy fal wala kenn ngeen baal ma dama tudd ñooñu noonu rek koo xamante ne dem na ba nit ñi yaakaar ne amatul sens foofu la ñuy xamee seen doole ndigal mais jël ndigal xam nga koo xamante ne mooy organiser élection ah mooy fal ministre de l'intérieur bi koy organiser <laughs> bi confectionner carte yi koo xamante ne mooy choisir fan la ñuy def bureau de vote <laughs> kooku kooku su ko neexee sàcc élection kenn moo ci mën dara surtout sàccu élection yu bees yi nga xamante ne moo xew léegi ah parce que dem na ba yegg biir Amérique ni ñu koy defee léegi dafa doy waar kooku su ko neexee sàcc élection yow kay boo aayee te mën a mobiliser mën a sanctionné da ngay dem ànd ak koo xamante ne amul yaakaar pourquoi pas ñëw sax kenn ku tudd Ahmadou Diop kenn xamu ko mu jiite conscience patriotique pour la changement nga ne sénégalais yi votel leen ko ndax ku jub la foofu lañuy ñuy xamee seen doole mais doole boo xamante ne bërigo bi teg nañ ko ci pant bi boo teggee sa loxo rek mu dem nga ne nga ne nga ne nga ne nga ne yaa ko yéegal foofu daanal ko xam ne amul sens nanu bàyyi taalibi sëñ Tuubaa yi nii politiquer ñoom sen yoon yi nu jaar ak yoon wi waji tra trace sëñ bu baax bi tracé du benn du benn de ndax moom lëkkaloowul woon ak ay ñitu nguur nga xam ne day toroxal peuple day sàcc alalu peuple day lek di bàyyi peuple day tukki di bàyyi peuple ci danger day génn di faju bitim réew bañ a faj waa réewam ñoom noonu la ñuy def ngay ñëw di laamisoo ak ñoom bu doon loolu la mu dem dugg ci kuuru Lat ba te de lettre bi mu leen bind ba tey yéen a koy liir ndax am jomam ndax doyloom ay nit ñëw ne ñoo ko donn ba pare ñàkk fayda bay bëgg a dee ñu bon rek lañuy àndal ñu bon rek la ñuy digal ñu bon rek la ñuy dilal xam nga ne loolu rek lu na de lu election yi nag di gën a jege mbokk yi gis nga lu election yi di gëna jégé. jege ah phénomène yu démé ni ak message yu yu yu salté ni di gëna lèr di ngeen koy gëna gis de man ma leen wax li. ndax lu muy gëna jégé rek pression bi di gëna bari waaw li moy li nga xamante bëggon na ko wax ci mbir Senegal euh, ci sénégal nak njitu catholique catholiques ñu demander un cimetière catholique ci banlieue bi ay a personnellement actualité bi occasion ñom ñu ngi koy la fête de Toussaint bi ñu doon de Dakar euh, profito pour joxe ay doléance am mu doon une vieille doléance bo xamantene ne wax deug yalla yag nañu ko ñaan même ñiko jitu mom arsevé gi ko jitu don nañu ko ñaan waye ba légui l'état fait la sourde oreille parce que en fait en réalité faalé wuñu leen parce que dañu naan c'est un nombre limité c'est un nombre limité bu fekkone tay réew mi chrétien ñofi upp may nañ leen ko bu yàgg comme niñu démé tay di siboru ay yeneen kër yo xamantene ne lenn rek lañu fa yaakar moy ndigal waye du ngëm-ngëm loolu bokku na ci li génn ci actualité bi euh, ca touba tamit dafa am ben ben waajoo xamante ne vidéo bi sax def nañ ko ci biir suñu kër dañu ko japp mu euh ben compte ben mbir mo xamantene ne ben kees wala ay kees yoo xamante ne dafa fees dell ak sàngara illa <laughs> illallah une forte quantité d'alcool mu yore ko gaa yi jàpp ko nag population bi ñoo ko jàpp ñu poñe ko coow li jëm kaw xur ñu ne dañu koy yóbbu police te fan yi rek ñu ngi doon génnee bi ñuy defar dëkk ba di dindi ñi nga xamante ne ñoo ñoo occupé illégalement euh, euh, euh, tali ñu nga fa doon génne benn liste di wax li ñu fay tere ay nañu góorlu ba ba góorgóorlu tere ko bu baax de ndax ñenn ci ñoom ci ñenn ci ñenn ci ñoom ca ña dëkk di woowe seen bopp ay kilifa sax dañu koy dañu koy dañu koy jëflëkli ko muy Reclès bi moom rek la naan di mandi rek di aalu ñii di tux ay boon waaw ñii dañu koy def seen jabar yi di koy def chaque jour ngeen dégg seen fait divers yi li ñuy waxante ah ngeen koy dégg ndax quantité bu importante alcool bobu la lay def ci dëkk fofu ba ñi japp waaji war nañu ci gëna taxaw gëna sellal réew dëkk ba moo gën ñuy dugg ci politique bi di ànd ak ñoo xamante ne lii ñuy tere sax ñoom bu ñuy ñëw seen résidence yi dañu ko fay naana parce que am na ci ñoom ñoo xamante ne mënuñoo toog ñaari waxtu te naanuñu sàngara wala tux cigarette kooku naka lay mën a defee tuubaa ñetti fan wala ñëw ci màggal gi defa une journée entière munuñu ko munuñu ko dañu ci gën a góorgóorlu gën a respecté dëkk ba li nu fay tere ñu bàyyi ko waaye loolu bu ñu koy def dañu koy def mu bañ a am xàjj ak seen waaw États-Unis nag nee nañu envoyé na ay navire ak ay avion de guerre euh, ñu jëm foofu ca ca Corée du Nord euh, amna aussi ay bombardier nucléaire russe ak yu américain yo xamantene aussi tamit yóbbu nañ ko ñomit mu jëm ca corée du nord parce que donald trump nee mom dina corriger euh, corée du nord waxnako ci ouverture conseil de sécurité bu nations unies waxnako ko fa wa lolu bokku na ci li nga xamantene genn na ci euh, genn na ci euh, ci ci ci ci ci presse bi Euh, Russie Russie ci guerre bi nga xamantene guerre indirecte la parce que moy guerre froide bu continuer rek bu renaître euh Russie effacer na dette bo xamantene tollu na ci 1 milliard de dollars bo xamantene Venezuela amel nako ko fu toll ni euh rew yu mak yi bu ñuy xex ma ngi sétan sax ben vidéo wo xamne dañu ko défar di wax ne ñom bu ñu amé guerre euh day nekk guerre mondiale ñom bu ñuy xeex xool guerre yi ñu wax ñaari guerre mondiale yi ñu wax yépp ñom ñoo doon xex seen biir de ñom tuba <laughs> bi ñu toll bu ñuy xeex seen biir rek guerre mondiale la ñun dañuy ñëw sax ab sénégal ay militaire yóbbu ci guerre tuba moo ñun mënuñu ofal ay say say bu ñuy bu ñuy di la exploiter day xex da nga leen di ofal bu ñu demee ba faible nga mëna sax ñëw fayu occuper leen ah waye ñom bu ñuy xeex bu ñu naree dee ab lay ab la ay nit yow yow nga dé am dañ koy def Arabie Saoudite bi muy songu Yemen ñëw fa ñëw Sénégal àbb leen ay militaire yóbbu leen ñu dem ay nit ay xartaan yi dem dee ci seeni tur waaye ñoom du ñu dee de ñuy dee da di mën a nag ay saay-saay bu nuy xeex ngeen ofal leen léegi nag fu mu comme que fi mu toll nii dañuy recruter Russie mu ngi recruter ay ñoo xamante ne dañuy xeex Amérique wala ñu contre politique gu Amérique dañu leen di baal seeni bor comme ça ñu gën a mën a engagé wu ci ñoom motax russie bal euh, venezuela 1 miliar milliard de dollars bor bo xamantene ne euh, dañu len ko amel khalifa sall nak nenañ dañu koy top pour détournement de deniers publics té lolu dossier yépp buñu ko dajalé warna mat 103 milliards waaw néna dina ko mat euh, lolu bokku na ci li nga xamantene ne génn na ci génn na ci presse bi masata jagg nak dañu ko taxalaat ci benen affaire ndax nee nañu euh, euh, il aurait reçu plus d'un milliard de dollars de Tokyo Olympic Game bit mooy mooy mooy euh, bet boobu nga xam ne bu ñu koy def dangay danga da nga dañuy seet ñan ñoo leen di influencé pour que ñoom ñu mën a organiser ay ay ay ay ay kii ay Jeux olympiques wala championnat du monde wala yu demee noonu waaw ndax li nga ciy mën a gagné di koy ëpp sa hôtel yi nit ñi dañu koy ñëw feesal dañuy fay dañuy consommer restaurant yi dañuy def du tourisme ba pare ak yeneeni mbir mbirum lekk yeeg yu ne lu ne day xew lu ne ak yi ngay jaay ka dañ ci dañ ci day maanaam day booster économie réew daal maanaam sa infrastructure yu bari di nga ko ci tabaxaat di nga am ay stade yu bees di nga xam ay salle d'entraînement yu bees ay hôtel yu bees ay lu ne ngay am lu bees moo tax da leen koy jaral léegi nag ñu ngi ciy taxalaat maset a jàll waaye teewul Macky Sall joxe ko de nee na du ko jox kenn ndax baayu masata jaag nee na alal ji mu bi nga xamante ne moom la ñu moom la ñu def corruption financement bi ñu ngi ko def ci financement parti politique yu mag yi te parti Macky Sall bii ci la bokk ndax wax na li ñu ko jox il doit faire euh, bientôt dix-huit heures au Sénégal nee nañu ci la Macky Sall di fay jóge voyage ñëw sénégal rek aussitôt day jël hélicoptère bi dem rencontrer cheikh sidi mukhtar yalla fi yag te wér euh, pour euh, euh, rencontre bo xamantene ne visite de courtoisie néna lañu ko tuddé moy ni nga xamantene rek non lañuy def avant magal gi ñu dal di fay dem néna ñu demb lañu ko bëggon def nak ñu dal di koy reporter euh euh ay murit yu gennon di wax né bu fa Macky Sall ñëwé ca Touba demb dañ ko doon xaar dañ koy toroxal dañ koy toroxal euh nit ñi nag xamuñu ndax loolu motax ñu reporté ko waaye yaakaaruma ni loolu la xëy lu fi Macky Sall nekkul woon moo tax euh, waaye tey jii daal nee avant julli timis bu soba yalla dina rencontrer Cheikh Sidi Mokhtar euh, ci même moment bi Mohamed Boun Abdallah Dionne nena na Ila Touba sera réceptionné définitivement euh, au mois de décembre 2018 moy moy quelques mois rek avant élection présidentielle yi

mu koy expliquer dañ koy top ci walu économie am nañ ay techniciens yu bax waye duñ leen bayyi ñu liggéey de te mom dëkk ba mu jugé bo démé bu fa démé di wax li sax bu motul président bi indil ko ay problème li moy li nga bokkon na ci euh, li ma bëggoon jukki attentat nak dafa amoon ca new york euh, benn waay moo yore camion rek ñëw di mbëkk mbëkk ay nit rek ba nee ñu rey na fa huit nit donald trump nag nee na nee na le renforcement du, du contrôle des étrangers. yaa yi Donald Trump rek lañu ragal yaa <laughs> yi Donald Trump ni ya dañ ko ragal ndax mom mo na leen xar sen xay sen terangay fu say say deug lay utili Manam manam day jouer psychologiquement ci bop étranger yi ba nga xam bo boo étranger sax da ngay tit. man gis na ño xam dañu am keuy sax ba pare tit quoi ñi ay nationalité sax ba pare tit. Donald Trump ken ñamawuko. kenn ñemewu ma ko ñemewu ko ñoom kenn léegi nag nee na ñu joxe na ordre boobu euh, te nee na Amérique lu tax lii di fi xew mooy ay loi yoo xamante ne dafa dafa weak mooy maanaam dafa faible il faut que ñu renforcer ko nee na dëgër ci étranger yi pour que lii duñ ko sax ñemee def ko fi sax ñemee def mais am na benn mbir mu am solo boo xamante ne jar naa leeral gis nga attentat États-Unis attentat lay wax de liñu wax attentat terroriste limu ral ci ay américains xola c'est le centième bi nga xamantene mass murder da koy def moy la théorie massive bi ñuy def ci Amérique billahi wallahi taala du sax asakam ñom li tax ñukoy jël affaireu terrorisme di ko Nyom ci kaw ñom rek ñoko xam ñoo xam lan lañ ci jublu li ñu ci jublu bokk na ci xeex étranger yi ak ñi nga xamante ne duñu ay tubaab ndax ñoom rek lañu koy jiiñ de bokk na ci xeex ay société bokk na ci xeex ay religion waaye ñoom seen biir li ñuy rayante américains yi laa la wax li may wax ni na kenn du ko weddi de ndax Barack Obama wax na ko li may wax amul kenn ku koy weddi terrorisme li muy ray ci Amérique c'est le centième wala moins di santiem li nga xamante ne mass murder da koy def fii ci réew mi chaque jour mu xewan ah, chaque jour ay léegi dafa dem ma nga xam léegi ci télé locale yi moo koy wane bu ngeen déggee télé yu mag a mag international yi wax ci rek mooy dem na ba ñëpp xam ko mais ci mais ci kan yi lay xewee ay nit ay élèves di dugg di rey seeni professeur ak seeni ak seeni moromu élèves mais kenn du ko yëg lu dul local news lay nekk local news mooy mooy mooy les informations locales ñoo koy génne seen télécon yooyu nga xamante ne portion bu ndaw moo koy seetaan loolu duñ ko yëkkati ca kaw mais buñ ko yëkkatee ca kaw rek mooy am na li ñu ci jublu parce que man jàpp naa man jàpp naa sama opinion que ni Amérique seen information dañ koy filtrer am na loo xamante ne ñëpp xam nañu ko mais kenn du ko génn ci télé kenn du ko génn ci télé xaw nak ndax patriotisme la ñu ci djublu wala deet amna lu bari luy xew ci yeneen réew yi fii la rawee waaye kenn du ko yëg mais bu yëwee ca kaw rek amna loo xamante ne une orientation politique buñ ci djublu lu doy waar ah. lu doy waar loolu bokk na ci li nga xamante ne bëggoon naa ko ci euh, bruxelles airline nak moom moo nar la première compagnie étrangère buy atterrir ca euh, aéroport blaise diagne bi Macky Sall wax ne bëgg na gaay inauguré ko fii def naa 37 jours ci des ndax nee nañu mois de décembre dañu ko bëgg inauguré waaw loolu bokk na ci li nga xamante ne bëggoon naa génne euh, jàpp nañu nag ay réseau de mannequin ak ay serveuse yoo xamante ne ndekete dañ doon jaay seen bopp ay caga lañu ay caga yore ay réseau Sénégal moom Euh, man yónnee ñëw sax ay video yoo xam ne dañu bëggoon ma publier ko mais yooyu ñemewu ma ko publier ah ñemewu ko parce yooyu duma ko publier ay nit di ko seetaan te en cassette la ma ko doon joxe koo xam ñoo xamante ne dañoo dem ci ay ci ci ci massage yi ñuy organiser Sénégal ñu leen di maase ah di wax ak ndaw si dafa mute nag di wax ak ñoom pour ñu leen di laalal seen yenn partie intime yi ci massage bi la bokk waji jël caméra bi fu mu teg yëre yi la ko muur ba bàyyi affaire bi di kii ah mu koy filmer ndaw si di def lu ñaaw lu ne def nañ ko ñu leen di fay ñu ne lii la ñu nekkee dañuy organiser ay affaire de massage te xam nga yooyu yëfu saay-saay la te loolu dafa fee ci réew mi ñu jàpp nañu nag benn réseau boo xamante ne vraiment euh, proxénétisme la ñu doon def ca réew ma te léegi loolu dafa nekk dafa xew dafa xew nag dégg naa dégg naa dégg naa xew Sénégal ah waaw salle bari na ay réseau yoo xamante ne dañu leen di jël di jël jigéen ñi di leen yóbbu bitim réew am na benn bu ñu ci jàpp boo xamante ne ay naar lañ leen di yóbbul bitim réew ñuy dem di tukki di ñëw rek kenn xamul ci lu nekk. léegi nag loolu day yàq sax suñu deru jigéen ñi ku ñu gisee kuy dem di tukki di ñëw ñu ne fi ne ci yooyu nga nekk ah. mi moo tas réew mu tas nag euh, euh, euh, nii rek lay mën a nekk mën a mën a demee. réew moo xamante ne kilifa diine yeeg yu aada yi ànduñu pour dimbali réew nit ñi ñu humain ak mooy ñu humain mooy ñu nite dimbali wuñ leen ñu nite ci li lu lu yiwa di rek la ñuy def ak lu ñàkk nite ba ci ñun ñi nga xamante ne ñooy taxaw sax tey di wax di jël ay kàddu di ko yëkkati sunu kilifa yi billaahi looloo ko waral ba jamonoy baax kenn ñemewu ko waaye bu ñu nekkee ci ci mbirum saay-saay accéléré ñëppay am fit di wax yu leen neex loolu moo ñu ci yóbbu nañu jubal nañu jubal digal nit ñi ñu jubal nit ñi jubal ndax am na ci ñoo xamante ne baat bi nu yore bu ñu ko waxoon jëmee ko ci lu baax rek mu jub waaye duñ ko ci jëmale dañ koy jëmal ci ay loo xamante ne amalul nit ñi benn njariñ yàlla xam na ko ay musiciens yu xuloo lañuy dajale juboo ay mbeur yu xulo <laughs> billahi xola ay ño xamne bu ñuy wax rek ñuy ressource ñuy ñuy ñuy solutionner les problèmes du Sénégal xolal ay mbeur lañuy dajalé di leen djubolé ay ay politiciens yu xulo lañuy dajalé di leen djubolé quoi <laughs> non dafa doy war réew mi xolal ay businessman yu jotté ci ay deal dilu sacc business xulo ñu dajalé leen di leen djubolé quoi té mënu ñoo dajalé djubolé peuple bi mais c'est extraordinaire ay say say yo xamne buñu andé dula àndee du la dara suñu réew buñu ñu duñu wañi dara ñoñu lañuy perte sen temps di ci def énergie pour ñu juboo quoi té réew mi kenn wul ak sa morom kenn da réew mi dafa doy war gaay ngeen balma ila jukki amul job bala malay jox kaddu amna suñu benn mbokk buy woote abdou fata xamna li ma tuddu wa touba moy woote ay ma ngi koy lu wax baxna alaykum bi tey delloo ziar. baax rek ci kii bi nga indi surtout lu aju ci Touba loolu moom buñ ci boo ci waxee rek daanu duma suñ kàddu. ndax daf moo ñor. waaw. ndax ndax la fa nekk day su dafay loo xam ne nii lu doy waar la te luñ war a wax la waaye kenn ñi mu ko wax. da de danaa ko wax. dañoo waaw dañoo toll jamono joo xam ne nii Touba dafa war a weesu. di xaar ñu koy defal waaye dafa war a defal boppam bay dimbale ñeneen. wallaay. Euh, gi nga euh, gi nga kilifa yii fa nekk te jii na ñoo yore kàddu murid yi ñoom dañu xaw dañuy nelaw xaw ma dañoo amul xam-xam da nga leen di xool ba yàgg day yéemu sa borom ndax dëkk ko xam ne nii la fay dugg ci xaalis dugg ci benn dëkk ci biir Sénégal ndax ña nekk Ndakaaru sax di fay tax ñoom dañuy fay tax lu tuuti waaye dañuy jël seen xaaju. li ñu am ci euh, euh, at yi yëpp jël ko yóbbu ko Touba. wallaay joxe ko ba pare laaj du ñu laaj lañ ko dugal. kon Touba euh, fii mu nekk da ko war a weesu. Hmm? ci ndox ndox may taa ci mbedd mi. Hmm? mbalit ma nit ñi amuñu fu ñu fajoo ñaari hôpital moo fa nekk te benn ba sax demi demi hôpital la. ñu koy wax hôpital Matlaboul Fawzayni nga xam ne murid yi ñoo ko fa def. wallaay murid beneen ba. billahi ma len ko gëna bëgg amadou diom ma jox la kaddu assalamu alaykum jawar diop wa alaykum salam ma ngi lay nuyu di la gërëm di la sante la ñu lay fay amadou liggéey bu rafet bi ngay def gor nonu ngay def boy wax da ngay wax li nga xamne mo jëriñ ci réew mi do ci seet li nga xamne mom la sénégalais yi bëgg parce que l'islam dafa wax né boy wax dëgg da nga koy def ngir yalla lolo ci fekk fekk la ci te dara du lo ci fekk ndax yalla day ànd ak yow alhamdulillah rabbil alamin waxtan wi nak am na njariñ parce que ci nga dëkk sujet yi bari na njawar man ci waxtu tuuti nak waaw ah man day ci allo voilà parce que apparemment il y a du bruit là voilà waaw allo waaw ma euh waxtan wi am na njariñ parce que wax nga ci CEDEAO dana nam luñ ci wax parce que mbir mi dafa ànd ak CFA bi ak roi du Maroc jàppal bàyyi parce que xam nga ne umpale woo ne euh, unité africaine ak union européenne ci Afrique dañuy daje ci Abidjan le 29 novembre 2017 te kooku man man damay bëgg a njawar xam nga tax ah. man day comprendre naa sax africain yi def seeni sommet ci seen biir hmm. waaye union européenne lu ci seen yokk bañ ciy bokk te li ma ci jaaxal l'inverse n'est pas autorisé am de mukk tubaab bi bu ñu def seeni sommet est-ce que africain ñeme nañ faa jaar dañ faa ñeme waaw xanaa ndax ci G20 yi nga xam ne finalement dañuy jouer les figurants wallaay wax nga dëgg voilà voilà ñu tàllal seen i la voilà di yàlwaan di tarbiwu di déglu ñu leen jox ndigal joxe ndigal yu bari notoriété de piètre qualité parce que dañ leen di comme parce que li tax koy wax commencé hmm. parce que ki nga ne euh, l'ex ministre garde des Sceaux ci France bi fi Nicolas Sarkozy nekkee muy Rachida hmm. Dati voilà parce que dafa wax benn discours boo xam ne daf koo biaisé parce que dafa wax xam nga xam nga les panafricains xam nga dañuy dénoncer la monnaie coloniale te nun bokk nañ ci hmm. waaw dañoo dégg discours yi jàmbur yi hmm. parce que comme xam nañ les élites de Pakoui larbinisé satellite hmm. de l'impérialisme international capitaliste golo du bay babu du dunde Rachida Dati dana bokk ci sommet boobu hmm. ay à quelle fin parce que sommet boobu am na girawali parce que dafa wax ne xam nga li gën a dellu ginnaaw parce que xam nga chinois yi sax d'ailleurs ñoo ko waxoon hmm. benn économiste chinois dafa waxoon benn discours boo xam ne moom la dégg parce que ñoom it dañuy copier ah njawar ñu ko fàtte de war ñoo dàq copier fi parce que chinois yi dañu ne hmm. sur la monnaie CFA dañu ne waaw est-ce que euro bi daañu ko impré est-ce que daañu ko fabriquer Chine loolu lañu wax hmm. maanaam kon lu tax bi ñu koy fabriquer France nga chinois yi loolu lañ wax hmm. te mbir mi garaawal yi ci nekk mooy parce que def ne ah, ah, maanaam daal kenn waru koo kenn warutu koo fabriqué France Il faut changer de nom hmm. te def ay ce discours totalement crypté piégé. sur toute la ligne du dire. je dire. du que fabriqué France waaye dañ ci war a génn c'est tout voilà le problème c'est ça la vérité C'est gi la parce que qui n'est c'est comme si effectivement comme Khalis bi bien n'y peut franc par exemple exemple millions de billets par exemple nous fabriquons en France Sénégal Ou la Côte d'Ivoire hmm. parce que change parce que nous, manam bo yoree CFA mënu koo jaay ci ci eh, Congo hmm. waaw jaay ci Congo parce que il faut que France jox la ndigal. dëgg la parce que De Gaulle moo ko defoon à partir de 1945. avec son ministre des et de l'économie. maanaam li nga xamante ne bii ne moom la leen Allemagne yi doon ŋàcc moom la def Sénégal parce que tubaab dañoo parce que am na benn waay bu wax ne moom ci benn émission mag ko dégg keroog nga teg ko muy benn rediffusion mm. benn waay bu jàngkat ne waa bi ni ñuy calculer trente ans lañuy calculer avant wallaay wallaay wallaay wallaay xam nga loolu lañ def ci franc CFA mm. parce que ab dëkk boo ko bëggee yilif da ngay yilif ay ñi nga xam ne ñu ko jiite dëgg la loolu moo tax ñu def ko ci franc CFA c'est ça la c'est que loolu gàcce gu mag la mm. parce que parce que dix millions Sénégal Côte d'Ivoire mon fexe ba am 11 millions. nga 10 millions parce que c'est une courbe. contrôle am nga yow. wallaay wallaay. mënta nekk. te sax li ci grand wàll gi la hmm. waaye les réserves de change. calculé ko 1945 ba tey ñaata la. mais c'est extraordinaire c'est que du révisionnisme, du négationnisme. C'est pire que tout. C'est C'est Si ci gën a Madame Afrique centrale Afrique de l'Ouest ben mais c'est immoral même c'est immoral même et c'est contre-productif. Hmm. C'est anti-africain même, anti-kamit même. Hmm. kooku négation bi mënu koo weesu hmm. ndax xel dafa mënta nangu trop ñoom dañoo d'accord ci seen bir ñu koy fabriquer Allemagne ñoo ci jariñu kon tax ñu lakkana Nous, def ci sommet de parcours yo xam c'est pour se donner une bonne conscience de Paris voilà le problème C'est li ci gën a jéggi hmm. oui parce que nous tax ma écrit ci parce que royaume chérifien yi nga xam ne moo koy jiite le roi du parce que le Maroc a été créé de terre par la France. wax hmm. c'est la même chose que l'Arabie saoudite c'est hmm. pareil le Maroc veut intégrer la CEDEAO maanaam la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest à quelle fin la étrange parce que mbir yi dafa am ñaari mbir yu ci nekk ba dafa bëgg am bépp benn bi dafa bëgg am lan ah. nga ne Maroc dafa bëgg am lan. ñaari pieds la bëgg am. Ah. ñaari bëgg am. Ah. te am na ko sax ñaari tànk la am. parce que dafa bokk ci Maghreb. Mm-hmm. dafa bokk ci CEDEAO. waaw. à quel fin madame, de faut usurper madame, ce qu'on appelle le terme de leadership corruption massive pourquoi de femmes dafa am politique cataclysmique pourquoi la raison est simple Ndiawar hmm. c'est parce que l'Espagne mon mon mon, euh Sarawi hmm. Espagne gagné ci 1976. C'est ça. parce que voilà parce que problème au Maroc moi, mm. parce que je pas sais pas Sahraoui la RSD. la république arabe euh, euh, euh, la république arabe je sais pas Sahraoui ou quelque chose, fait, démocratique. Mm. voilà C'est ça. Parce mm. que mi indépendance te gagné majorité am na pays yoo xam ne comme afrique du sud dañ koy daganal dafa war am indépendance hmm. waaw te loolu mooy la pierre d'achoppement hmm. parce que classe Macky Sall gi dañ leen di jënd ñëwuñ cee wax yaa det hmm. parce que maanaam dañuy jënd ba nga xam ne Maroc da leen di ngalaat loolu la parce que euh, affaire CDO e finalement man pour man bokkuñu gis-gis même humain waa amuñu gis-gis te sax aw tur la rek dañuy wax li leen neex amul benn njariñ léegi nag bu ñu maanaam bu ñu yeggalee ba mar jiite leen. ci hmm. daañu gis musiba. Ah. te kooku c'est première dans l'histoire parce que Maroc maanaam c'est un pays effectivement enfin je ne sais pas indépendant. que l'indépendance maintenant en Afrique et dans le monde c'est totalement euh, fait relatif. Hmm. Maroc dafa am dirham. waaw dirham la am. Hmm bu ñëwee ci CEDEAO ko bàyyi Iran bi ñu UEMOA wala ak ñu CEDEAO est-ce que wala loolu mo bi affaire géopolitique la affaire stratégie la parce que ben, maanaam maanaam euh, euh, euh, front polisario manam ab sa le kii boobu front polisario manam le Sahraoui mo nek au nord de l'Algérie au nord de l'Algérie du côté euh, euh, Mauritanie euh, à l'ouest de la Mauritanie. Mm-hmm. parce que dafa une zone stratégique parce que suñu amee indépendance Maroc a am sécurité. Mm-hmm. pourquoi simple que day ànd ak Algérie ak politiquement et économiquement mm-hmm. c'est ça c'est ça le problème voilà mbir mi foofu la très rek ci li nga wax ci benn les faits divers takis bi nga xam ne suñu dëkk parce que paralysie a ci def parce que man loolu laay def toujours damay def analyse hmm. lu lu su benn waay waxee rek ma seet ba xam muy wax yenu maana wala yenul maana parce que yow li nga wax dafa yenu maana maanaam suñu tumuraanke bi nga xam ne lu def ko Sénégal jàlla fen tous les mots sont sont autorisés fusil ils abjects maanaam ñàkk gi dana def ba lu leen neex la def waaw parce que dafa am ci France benn voyante boo xam ne dafa prédire benn guerre ko dans six da mu ne ko mu ne ko lan Ahmadou kenn déggul li nga mujjee wax mu ne ko dans six mois lan voilà xam nga dafa am benn voyante waaw ci France ci Moselle mhm. ah benn benn jongoma bu ji mu ne ko dans six mois par par crise cardiaque ah ci yàlla ah. jaaxle xam nga ndaw mu def hmm. porte plainte <laughs> affaire boobu dafa am njëriñ maanaam mooy li ngay parce que loolu maanaam jël bi li mu ci parce que dana escroquerie la ah.

liggéey nit nu mu mën a def ba mu dox dof da nga ko def réussir ak put put moo ko mën a defe te sant dañu ne ci dëkku lanu e, voilà hmm. léegi ci affaire u Khalifa Sall nag hmm. xam nga ñu ne voilà euh, le comité at voilà xawma lan na tergitation la termoir la man su bëgg a lever l'immunité bu Khalifa sàll pour man ci sama gis-gisu bopp laa wax sur le plan juridique c'est un dysfonctionnement juridiquement hmm. Amadou allo Amadou voilà dafa mel ni perte nañu Amadou Joe. Amadou voilà xam naa. am na waaw ma mooy kii euh, euh, assemblée bi ga euh, position bi doo doo doo laaj parole gars yi bañ leen jox gars yi gedd génn déclaration bi opposition yi def ah, ci jamono ji. xam ni yëf yi aw na yoon wala amul yoon tey ni yëf yi doxee bi aw yoon tey ëllëg dana wax fale am na solo waaye nag wax ak askan wi yéenay askan wi ndax yett kay tasaare ba askan wi yëpp dañu xam ni xalifa sàll suñu bëggee lu aw yoon maa jëkk wax fii loo xam ne am naa si ndam waaye nag ma si amee ndam bokk ak ñoom bi maa leen jëkk wax sàll kon doon arrêté loolu loon député

Euh, ba altine xam naa Ahmadou Diop tolloon na fu am njariñ euh, foo xamante ne foofu la doon expliquer euh, surtout positionnement am ak idées yi nga xamante ne moom la am par rapport ak li ñu waroon a waxtaane mais malheureusement connexion bi dafa daw dafa daw may rappeler rek mbokk auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu Euh, que ces émissions bi c'est du lundi au jeudi euh, direct bi nekk lundi ak jeudi waaye mardi ak mercredi Émissions, yi nga xamante ne ay at a ngi nii ñu koy def depuis 2013 euh, moom la ñuy def rediffusion Ahmadou dafa mel ni yaa ngi may woowaat est-ce que yaa ngi may dégg. Ah, waaw waaw ngi lay parce que affaire bi dafa jékki-jékki rek coupé. waaw dafa jékki-jékki rek coupé léegi ma bàyyi la nga daaneel dese nañu 15 minutes ma bàyyi la nga daaneel fi nga tolloon. voilà voilà tout simplement. voilà allez xam nga affaire Khalifa Sall bi. waaw gis nga ni Njawar boo nekkee député. Ah. tant que yaa ngi nekk député kenn du laaj dara. parce que da nga am immunité parce que comme ni ko président di amee. loolu mooy dëgg man loolu du ma ci appesantir te loolu violation des droits de l'homme quand bien même que faraluma Khalifa Sall parce que dëgg laay faral. dëgg la voilà problème. Hmm. léegi Yoff dañuy laaj euh, maanaam cimetière catholique yi dañuy laaj cimetière. waaw bëgg nañ ko kooku c' est une revendication légitime. parce que affaire clientélisme la. parce que bu doon musulman yi duñ sax dañ leen koy jox dañ leen a xeeb dañ leen di wetti c' est ça kooku bokkul ci démocratie. ci affaire très rapidement nag parce que 15 minutes moo ci des. Ah. xam nga man ci affaire États-Unis Donald Trump man li ma man kooku nekkul ci dëgg. waaye xam nga yàlla moom yàlla de koy jaay waaye yàlla mi ngi koy weer parce que bis bu yàlla sax ci la nekk Corée du Nord mu naan dafa yóbbu ay avion soviétique yi ñoom it dañ fa yóbbu avion mais dara dañuy tëkkoonte rek dañuy xiiroonte parce que duñu mës billaahi buñ ko defee àdduna tukki ndaw dañuy wax duñ leen ma duñ leen ma dañuy xabalaate rek xam nga ñi ñuy xam nga ñan la <laughs> ah. ñun ñii la ñuy fekk fekk nu fa nu nekk ñu jatanu <laughs> ñooñu kenn du <laughs> mais bien sûr ñun rek mais d'ailleurs mais xam nga accord de défense présence militaire permanente. Wow. mais France dégg nga euh, Macky def ko. gars duñu de. ñun ñun rek la def kenn laal. ñu arme d'ailleurs xam nga arme arme égale billaahi kenn du la tudd wallaay wallaay wallaay wallaay arme yoo xam ne ñi ngay arme yoo xam ne muy satan amul benn puissance boo xam ne man nga dégg nga mën nga leen a arrêté te mu leen a arrêté gaa dañu laalante de dañuy xiir wante rek wax ga dëgg de ci wax rek parce que bu ko defee àdduna tukki dañuy wax rek tax munoon nañu wax rek munoon nañoo laale te àdduna tukki de ah waaw mais déet problème bi ah. mooy buñ defee xam ñoom dañuy sànnante ay mbir bu sànnee doo xam mbir mi fan lay fan lay teer. ay bu ñu sànnee ci ñoom rek lay yem de dañuy tiital nit ñi rek man de gëmuma ne mën nañoo sànne luy taal àdduna bi yëpp man gëmuma ko bokk. benn rek bu taal àdduna bi gëmuma ko waay. wala léegi léegi léegi ci loolu xam nga attentat bi nga xam ne malheureusement am na ci États-Unis itam am huit morts ah. xam nga huit morts yi cinq argentins ñoo ci bokk ak benn bel benn gel ak ak ak ba xam nga Donald Trump affaire boobu maanaam euh, Donald Trump joue sur le terrorisme. Mhm. parce que li tax ma ne il joue sur le terrorisme ak bëccëg pour plaire à son à à à ceux qui l'ont toujours soutenu. Mhm. xam nga xam nga yow mas nga fay wax ci émission bu daaw wala ci temps yële passé nga ne loto. xam nga di di dégg nga Donald Trump ci boobu ci affaire boobu lu bëgg a jafandu pour le taux boobu. Hmm. bëgg a jafandu maanaam pour moom ñi def attentat bi ay jullit lañ ci kooku étrange. wallaay wallaay te wax wax ne mook nekk na fa depuis 2010. waaw 2010 la fa nekk ba nëgëni. dafa hmm. ci jaaxal su bekk mais bokk pays yi nga xam ne nekk sur la liste xanaa kon da léegi ci boole xam nga def ko c'est parce que pour créer la zizanie la diversion exutoire la parce que il blanchir eh, maanaam eh, eh, ces scandales hmm. parce que xam nga am na benn conseiller boo xam ne boo xam ne finalement est sous le feu à la rampe. walaay walaay walaay dafa fen FBI nee nañu. waaw dafa fen. léegi nag Donald Trump pour couper ses arrières mun jaar ci loolu xam nga mooy les intérêts supposés justes hmm. ci élection américaine yi hmm. te Ukraine euh, le ministre des affaires étrangères def na ci benn sortie bu rëy nee euh, euh, Ukraine ba xam nit bi lan moo xalaatam hmm. ah, kon feeñ nag ci lu kon leer benn affaire rek très rapidement xam gis nga terrorisme fu mu am baaxut waaye li ma ci gën jaaxal les victimes principales majorité sont des musulmans dans le monde ñi ci ëpp nga xam ne c'est des victimes éternelles ñi ëpp dans le monde waaw moom na te masata ja moom ñëpp nañu li mu demee parce que dañ million cinq cent mille euro ci argent bi xam de le colis encombrant li koy xaar loolu la parce boole muy la père Jacob père et fils voilà le problème xam nga ah, euh, léegi damay jàpp parce que euh, comme comme temps bi jeex na xam nga aussi ci qualité internationale maanaam la presse internationale inféodée à l'impérialisme maanaam day passer sous silence le voyage de Poutine en Iran hmm. xam nga l'accord iranium bi nga xam ne doon na def le président Rouhani nga xam ne finalement gis nañu dàggal sante bi nga xam ne ci la Donald Trump nekkee. Mm. waaye nit ñi si nga Poutine actuellement mi ngi nekk Iran dafa signé contrat con contrat commerciaux yu bari. puits mm. de pétrole. xaalis bu la Russie bu ci jariñ ndax terminer. Mm. ah man de sax tey na ci li ma xam nga l'aéroport international Léopold Sédar teg ko. waaw Macky ko réservé aux militaires ah. mu ne lan. l'aéroport euh, international Léopold Sédar Senghor. base militaire la boo xam ne avion militaire yi fa la ñu atterrir allahu akbar xam lu tax. Ah. loolu mooy américain yegg ci tubaab bi yegg si leen arme. Hmm. Sénégal Sénégal ñu ñu wër ko ñu la. C'est ça les accords de défense. C'est la présence militaire américaine. Donc là. Mané, ne moi, loolu moo. yaa ne ku leen li nga bëgg ñu la li nga bëgg. mais lu ñun manam, man daal ñu nous nous sommes de sursis loolu moi Macky Sall dana sàcc élection billahi dans ko sac. dana ko sac, de dara voilà parce que seront toujours sous surveillance permanente ah loolu moo fi

Euh, di jéggalu mbokk auditeurs yi képp ku fi dégg loo xamante ne neexu la ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax euh, ku fi dégg aussi loo xamante ne lu la amal lu am njariñ la mën la jariñ euh, ñu la di la ñaan rek nga partager ko pour que permettre yeneen i sénégalais ñoom it ñu jot accès ci waxtaan wi nga xamante ne moom lañ leen di defal du lundi au jeudi di leen baalu àq bu baax a baax a baax di leen baal àq xam naa Euh, altine bu jotee bu soobee yàlla dinañu def aussi benn waxtaan bu spécial euh, jëmale ko ci benn sujet bu am njariñ boo xam ne duma ko sax annoncé euh, waaye dañuy bàyyi rek ba altine incha allah di ñaanal sénégalais yi jàmm fépp fu ñu mën a nekk rawatina bitim réew yi di leen di ko ñaanal seen njaboot di leen jox dox daje incha allah bu altine ci beneen émission l'info autrement Eh, di gërëm Ahmadou Diop participation ak seigne Abdou Seck eh, moom mi woote won sank ci téléphone bi mbokk yi jërë ngeen jëf tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew ah, ah, ah, lu jëmale suñu réew kanam Comment nous faire nous ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie de mine et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo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 leen mën wax lii wala lëlël du leen wax lii wala lël lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek lu dul rek sama bëgg-bëgg sama bëgg bopp yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko yàlla ma ko sant mënu ko expliqué ma ñu am na ñu xam ne woon dugg seen bopp moo ma xiir ci loolu ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a Tout le monde man daal technicien là, dans le si on est à l'aise On ne ma daal il faut nga un fort, parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix avec votre soutien je suis sûr que j'ai réussi. c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement ku la defal